تسنيم اونلاين مولن دي جوتاي كور الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على اشرف المرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين باقي السلام عليكم ورحمه الله نيجي دل سوات تي جتاي كور دي لين زيار دي نان سوني بروم سبحانه وتعالى مو نانغول ني لين سوني حديث تي حديث انس له وعن انس رضي الله عنه يرفعه ان الله تعالى يقول لاهوني اهل النار عذابا لو أن لك ما في الأرض من شيء كنت تفتدي به قال نعم قال فقد سألتك ما هو أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك حديث بوت من صحيح البخاري صحيح مسلم حديث تابي حديث أنس بن مالك لا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم anas bi nga xam ni moom moo nekkoon ak yonent bi alayhi salatu salaam bi yonent bi alayhi salatu salaam ñëwee madina ndeyam jàpp ci loxoom mu toll ci fukki at ñëw indil ko yonent bi alayhi salatu salaam ne ko anas mi ngi nii na nekk ak yow di la liggéeyal mu nekk ci kër yonent bi alayhi salatu salaam di ko liggéeyal bañ tuddee ko xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam anas moomu moo nettali xadit boo xam ne yonent bi alayhi salatu salaam moo ko nettali ndax yarfaahu limité ki mooy rafaahu ila rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam صيغه بي لا تودي صيغه الكنايه موي لي تودي المرفوع الحكمي موي انا استف واخنا دغنا تي نبي عليه الصلاه والسلام موخنا سونو بروم سبحانه وتعالى يوم القيامه دا فاي واخ كيغا خامني مو غنا نيو مبوغل تي سفرا نسال الله السلامه والعافيه كي غنا نيو مبوغل تي سفرا لا يالا دي وخال نكو لو ان لك ما في الارض من شيء كنت تفتدي به ndax li nga xamante ni moo nekk ci kaw suuf lépp ci alal bu fekkante ni tey am nga ko mu nekk ci sa kanam ndax pare nga pour joxe ko ngir mbugal mi nga nekk nga génn si xaala am mu daldi na waaw loolu suñu boroom wax nañu ko ba tàyyi ci alquran wax lañ wax nañu ne ñi nga xam ne ñoo ko weddi lànkal ko topp àdduna mu nax leen yawmal qiyaam bu ñu gisee mbugal mi lépp loo xamante ni alal la ju nit di am ci àdduna buñ leen ko joxoon ñu joxe ko ngir mucc ci mbugal mi loolu li muy tekki rek mooy daray àdduna àdduna ak li ci biir ak lépp lu fi nekk jarul nit ki di waral ci boppam mbugalu yàlla subhaanahu wa taala yàlla nañ yàlla musal ci mbugalam kon ki nga xam ni moo fa gën a néew mbugal moom la ñuy wax loolu naka nag ki nga xam ne moo fa gën a tar mbugal bu ko suñu borom laajee ne ko ndax bu fekkonte ni li nekkoon ci suuf ci alal lépp moom nga ko ndax pare woon nga pour joxe ko ngir génn ci mbugal mi mu ne ahañ kay suñu borom subhanahu wa taala ne ko faqad sa'altuka ma huwa ahwan min hadha laaj naa la loo xamante ni moo gën a néew li fuuf gën koo ñàkk solo gën koo néew mooy moo ko gën a yomb li nga wax ne pare woon nga pour joxe ko li nga wax ne pare nga pour def ko ci effort pour mën a génn ci mbugal mii loola lu la ko may coono bi tax nga am ko laajoon naa la coono boo xam ne moo ko gën a yomb ndax boo xoolee won ci ni mu defee comparaison ci diggante li nga xam ne loolu la ki nekk ci mbugal mi wax ne pare na pour joxe ko ak li yàlla wax ne moom sàkk woon na ko ci moom dangay gis ne li nga ciy déggee mooy àdduna gi nga xamante ni bi moom la nit ki di kër kër yi di ci nekk di ko dajale coono bi mu ciy daj li la yàlla sant moo ko gën a woyof loolu lay tekki mooy ne kon nit ki mi ngi nekk di kër kër yi topp àdduna di ci daj loo xamante ni yàlla mi ko sàkk indi ko fi ci kaw suuf yàlla sàkk sant ko loo xamante ni toll na toll na ak loolu waaye tamit dinañ ci déggaate itam ba léegi ne ci wàllu jàppandi ak mën a nekk nit ki xëy na munta am li nekk ci àdduna lépp ci alal mu moom ko ba di ko joxe ngir mucc ci mbugal waaye lii yàlla sàkku ci yow moom loo mën a def la moo tax mu ne ko sàkk woon naa ci yow loo xam ne moo gën a woyof loolu fekk ne yaa ngi ci sa ndiggu bàyyi aadama fekk ne boobu nit ki mu ngi ci ndiggu maamam di bàyyam aadama wa fi sul bi aadam te loolu mooy kullukum min aadama aadama muñ turaab mooy ne ñun ñëpp ci aadama lañ soqee ko aadama moomu bi nga xamante ne bi nekk nañ ci ndiggam suñu borom subhanahu wa wax na ak ñun laata mu koy wàcce fii ci kaw suuf suñu borom subhanahu wa taala génn na képp koo xam ne di nga nekk doomu aadama ba keroog bi su penc di ñëw yàlla subhanahu wa taala wax loo leen seede loo leen jëlloo leen engagement ci digganteem ak moom wa id axada rabbuka min bani aadama min ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى قالوا بلى شهدنا ولا قالوا بلى شهد شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين سنو بروم سبحانه وتعالى دفا جلق نيوم أنجاج نحن كم دخنكم سين بروم دخنكم سين بروم فوف باتو رب لجفن ديكو تيني موم مولن موم مولن ساك مولن دي تخو لولو لتي جدو موين كون موم رك لن يورا جامو موي بنيو كو تخو لأي إقرار لكو فوف ربوبية نمكو وخي فوف loolu li muy waral mooy duñ jaamu keneen ku dul moom moo tax mu ne an taqulu yowma alqiyamati inna kunna an hada ghafilin aw taqulu innama ashraka abauna min qabl ashraka mu jëfandikoo foofu shirk kon loolu mooy wane ne engagement bi muy jël ci ñoom li muy waral ci ñoom mooy ñu wéetal yàlla te bañ koo bokkaale moo tax ci aaya bi kon ba ñuy weddee ka miim yàlla ne day bañ ëllëg ñuy wax ne ñom de li yeguñu ko won li xamuñu ko won seeni maama bokale won waye ñom bokale wuñ motax kon yàlla jël engagement bi lo leen ci seen bop mom yàlla sédé malaaka yi sédé motax kon bala shahidina ji ñom ñoo sédé wala bala ahn kay biñu waxé lolu ne ñom jël nañ engagement bi seen digënté ak seen borom yàlla ne shahidina sédé nañ mom yàlla sédé na mom kay ay malaakaam ndax bu ëllëgee ñu baña mim kon engagement la bo xamné yàlla da ko jël ci doomu adama yépp yenn ci borom xam-xam wax ne engagement boobu mi tekki mooy loolu mooy fitra bi yàlla waxoon ne fitrat allah allati fatara annaasa alayha la tabdila li xalqillah fa aqim wajhaka li diini xanifan mooy ne diine yàlla ji nga xam ne diine wéetal yàlla la sorik bokkaale ci loolu la yàlla mooñ doomu aadama yi waaye nit ki bu ñëwee ci kaw suuf ci lay daal di am ak soppeeku ki koy jële ci nature boobu nga xam ne mooy nangul yàlla ak wéetal yàlla دال دي جيم لنين تلول الحديث القدسي بوخون خلقت عبادي كلهم حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم سوني بروم بيم واخني دا ساك جامام نيب ني نيك نيكوي ويتال نانغول كو لولو موي اصل الخلق اصل الخلقه موي الجبله waaye loolu nga xam ne moom mooy seen cosaan gi leen yàlla sàkkee woon dafa am lu bëri lu koy soppi ci yi nga xamante ne bi mooy yi ñëw di ko di influer di influer ci nit ki ni muy dundee ak ni muy nekkee jële ko ci nature bobu yóbbu ko ci leneen loolu moo tax yàlla ne la tabdila li xalqillah bi yàlla waxee ne fitra bi mu sàkk doomu aadama yi mooy dinem ji dafa wax ne bu kenn soppi la tabdila li xalqillah nafyi la bi maana nahi bu kenn soppi mbindu yàlla moo tax fale cheytaane waxoon ne wala amurannahum fala yugayirunna xalqallah cheytaane waxoon ne dana digal doomu aadama yi ñuy soppi mbindu yàlla soppi mbindu yàlla ci ñaari côté benn côté mooy côté bu bu biir bi nga xam ne mooy nature bi ñu yàlla sàkkee nature boobu yàlla def ci ñun nga xam ne dafay jokkaloo ak suñu borom di ko gëm di ko nangul mu dindi loolu soppi ko waaye soppi soppi soppi bi tigi soog a ñëw mooy li ñuy gis tey ci àdduna ci ni ñu yàq yaramu doomu aadama soppi ko te lépp ci seytaane la jóge kon yàlla subhaanahu wa xamal ko ne ko bëggoon na ci moom laajoon na ko loo xamante ni moo gënoon a woyof lii muy wax ne bu amoon doon na ko jëndee mbugalu safara kon li muy tekki mooy doomu aadama bi bu dee bëgg nga jënd lu lay musal ci safara bëgg nga ut lu lay musal ci safara yàlla neewu la dajaleel àdduna ak li ci biiram jox ma ko yàlla soxlaalu la loolu li muy laaj lenn la mooy an laa tushrika bi nga bañ ma bokkaale ak kenn wala lenn lu mu mën a doon mooy li mu wax kii te suñu yonent xamal ñu ko ci loo xamante ne ci suñu boroom la ko jëlee jàngal ñu ne ko ne yàlla lii lay wax yow man xiyaam ab jaam bu nekk ca biir safara sa yow boo bañalee sa bopp loolu déglul bu baax kooka la nga xam ne moom la ko yàlla tere woon te mu def ko ba tax loolu mu tàbbi ca suñu borom ne ko bëggaloon naa la laajoon naa la loo xam ne moo gën a ñàkk solo moo gën a yomb moo gën a woyof ci yow li nga wax ne boo ko amoon di ko joxe ngir génn ci mbugal mi te loolu mooy nga bañoon moo bokkaale ak dara defaloo lu dul continuer fexe continuer nuur ci li nga xam ne mooy bokkaale fa abayta illa shirk nga continuer lànk rek daal di continuer ci bokkaale ak yàlla te boo bàyyi woon bokkaale gi wéetal yàlla sellal sa diine ngir yàlla jox yàlla cëram jox yàlla dayoom jox ko makaamam bañ a jël lenn ci àq yàlla yi di ko jël di ko jëmale ci mbindeef bàkkaar boo bu nit ki faatuwaale suñu borom mën na ko ko jéggal ndax yàlla yërmandeem yaatu na lool nit ki bu fekkee faatu na ak li nga xamante ni bi mooy tawxid ak lu mën a xew day dugg aljanna même bu fekkee am na ay tolof tolof am na ay jafe-jafe yu mu jaar ci aljanna la jëm waaye fi danger bi nekk mooy faatuwaale ak bokkaale yàlla nañ ci yàlla subhanahu wa taala musal ndax inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha yàlla subhanahu wa taala dafa wax ne du du baalaate bàkkaaru bokkaale ku ko dikkal indi bàkkaaru bokkaale yàlla neen du ko ko jéggal waaye ginnaaw bokkaale moom leneen lu ko soob mën na ko jéggale kon loolu moo tax nit ki war a góorlu fii ci àdduna ci jamono bi nga xamante ni weesagul mu bàyyi xel lu mel nii rëcc gu mel nii yowmal qiyaama dara jaru ko yàlla nañ ci yàlla musal li ci musal nit ki nag mooy góorgóorlu ci tawxidullah buñ lay wax tawxid nit ñi nekk fii naan da ngeen di jiñaate bokkaale dangeen di mais bokkaale moo rëy bokkaale moo garaaw bu ñu ragalloowul nit ki bokkaale lan lañ koy ragalloo liñ fiy wax ci ay ñaawtéef yépp di ko coow ak def ay marche ak bind ay ay ay ay ay lettre ak ay pétition ak bokkaale ko gën a garaaw foofu tolloowul ak bokkaale léeg nga dégg nit ñi di scandaliser wu ci ay ñaawteef parce que dafa fës nii rek mais bu ñu xoolaatoon dëgg-dëgg bokkaale bokkaale moo ko gën a garaaw foofu moo tax kon lépp lu ñuy sensibiliser nit ñi di leen ci wax bokkaale moo ci waroon jiitu kon moy ko bokale ba muccu ci bokale sa dina set insha allah taala li ci dess dina muccu te lolou mom moy waralal jaam bi texe ëllëg qiyam yàlla nañ ko yàlla defal wasalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh tasnim online mo len don may jotaayu koor membre yi ci groupe dégg diine ci mbooleem ay sippooram ñu ngi leen di nuyu nuyób lislaam di leen wax assalaamu aleykum wa rahmatullah umpule woo leen mukk taxawaay bi dégg diine am ci tasaare xam-xam ak yaatal daawa sunna ci biir senegaal ak li ko wër doomu réewum Sénégal di ci jëriñu ci biir réew mi ba ci bitim réew mu leen di jottali xam-xam bu dëppook alquraanul karim ak sunna yonent bi sallallahu alayhi wa ak fu ngeen mën a nekk ci réewi àdduna bi liggéey bu rëy bi nag yeyoo nañu taxawu ko saxal ay dëggoom ba mu gën a mën a taxawe liggéeyam looloo tax dégg diine aajowoo yaatal couverture am ci yeneen région wu Sénégal yi ci lu génn Dakar ak di beesalaat ay matériel am saa su nekk ak lu koy jàppale ci yembal ay frais de fonctionnement wam looloo tax direction bu dégg diine ubbi bunt yiw tàllal ci loxo ay aboneem ak ay membres ci ay cotisations yoo xam ne nag coobarewu rekk la lu ko tàmbalee ci 200 francs ba ci 500 francs ba ci lu ko ëpp ci weer wu nekk loolu mën a doon ndimbal lu rëy ngir dégg diine gën a mën a taxawu liggéeyam ngeen mën a joxe seeni participation jaarale ko ci numéro bile 78 514 78 38 ngeen mën ko jaarale ci Wave Orange Money Wizall Ria wala Western dégg diine seen loxo ci biir ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam ngir mu gën a mën a jëm ci kanam